bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi ñuy bàyyi xel ci leerlu des nañu yéen ci jataay boo xam ne ñu ko seq ak ay kilifa ñu dëkk ci réew mi dëkk ci dëkk bi di Touba itam ñu waxtaane lu yitteel jamono rawat na réew mi ñu bokk ñun ñëpp te muy sunu moomeel ku nekk war cee tabax ngir mu jëm kanam ci loolu xam ngeen ne li xew jamono ji te wala di wax ne lu xew di njàmbat Euh, njiitu réew mi son excellence sëñ Macky dafa génn ci benn jataay bu mu amoon ak réew mi di leen wax yéene yi mu yéene ak simbu yi mu sumb ngir jëmbalee démocratie réew mi kanam ngir dëgëral institution yi fi nekk ak ngir saxal ko ci loolu sart bi nga xamante ni moo ëpp doole ci réew mi te mooy nose mooy nday mbooleem loi yi fi nekk te ñu ko xamee constitution mu gis ne am na coppat yu mu ci bëgg def te muy coppat yoo xam ne ni mu ko waxee dafay laal lu baree bari ci mm, kër yi wala ci institution yi nga xam ne ñoo tey loolu moom lay wax ne mooy révision maanaam xoolaat euh, xoolaat boo xam ne daf ko bëgg bi joxaat ko réew mi nga xam ne ñoom ñëpp ñooy borom baat ndax ñoo ko fi tegoon ngir ñu àndal ko ci yooyu ci loolu nag la amee euh, invité yoo xam ne dañ leen woo fii ñu seq ñoom jotaay bi ñu fas yéene waxtaane loolu ci ni ñu xamee dundin tuba ci eh, am gëdd xam seen bopp ak teggi ni sama ndeyjoor ñu ngi toog ak sëriñ Alla Ñang sëriñ Alla Ñang responsable politique la eh, bokk na itam ci conseil municipal bi bokk na ci dëkk bi kon ku mën a wax ci wàllu googu la ndax ndomboy tànk yooyu wala boog ngir taxawaay boobu euh, kon sëñ Alla ñoo ngi leen euh, di. jërëjëf sëñ Mbacke Lo maa ngi lay euh, sant bu baax a baax. waa jërëjëf sëñ Abdou Niane moo ci topp moom la mi ngi fare ci APR muy parti bi nga xamante ni moom la mi salaam sëñ Mbacke Mohamed maa ngi lay fay di fay di mbokk nga xam ci ne ñoom lañ defee plateau bi tay ñu wara waxtane waxtaane ci gise lu am solo ko lu intéressé réew jëlé jërëjëf sëriñ xadim diouf moom itam responsable politique la mi ngi bokk ci parti bi ñuy wax réew mi té Idrissa Seck jide ko sëriñ xaadim waaw alaykum wa rahmatullah sëriñ mbacké do ñu ngi lay sant bu baax ci invitation yi di ñaan yàlla waxtaan ñu ci def nit ñu déglu jëlé ci njëriñ jërëjëf amin euh, ci sama wàllug euh, càmmooñ sëriñ Mamoor Mbàkke moom moo fi tooge sëriñ Mamoor euh, moom itam mën nañu ne société civile la fi toogal ndax moo jiitee mouvement bi ñu wax taxawu Touba sëriñ Mamoor jërëjëf sëriñ Mbàkke Longoor donga daara ba tey wax waxu daama xadim sëriñ Mbay amin kon mbokk yi ñooñu mooy sunu eh, gan yi nga xam ne ñoom lañuy séqal jotaay bi euh, kon jotaay bi ni ma ko waxee woon euh, président de la république moo eggale askan wi yéene ji mu amoon ci coppat yi muy def ci sartu réew mi muy constitution bi mu tolloon ci fukki tomb ak juróom fukki tomb ak juróom yooyu bu nekk yitteel na askan wi yitteel na ko moom itam ndax bari na ci yoo xam ne yàgg na koo wax yàgg na koo wax yàgg naa woon ne moom itam dana wàccoo ak moom te itam jubluwaay bi lenn la muy jëmale Sénégal kanam ci lu jëm ci démocratie ci état de droit ak institution yoo xamante ni dañuy dëgër dañuy mën a samp bu baax a baax waaye dañoo gis ne lu bare bari ci nit ñi liñ ci doon xaar rek lenn la mooy dafa waxoon ne juróom-ñaari at yi samp dana ko wàññi def ko juróom waxaat ne juróom yooyu mu koy wàññi itam mandat bi mu nekk da cee euh, léegi bi loolu amee dafa jëfandikoo itam lu ko àq may muy constitution bi ci article juróom fukk ak benn dafa xam ne président de la république ginnaaw bu mu euh, waxtaanee wala ginnaaw bi mu laajee xalaatu président assemblée nationale ak bu euh, conseil constitutionnel bi sañ naa joxe euh, nit ñi ñu dem ci référendum kon loolu moo fi indiwaat référendum dafa jëfandikoo ak joo xam ne constitution bi am na ko ci article 51 kon li ñuy njëkkee tàmbali te dama koy tàmbalee ci sëñ àlla mi nga xamante ni moo féete ci sama euh, ndeyjoor mooy bi ci gën a mooy bi ñuy wax ci euh, président bi nga wàññi mandat bi ci juróom jële ko ci juróom-ñaar jël ko indi ko moo bëgg a euh, focaliser lépp ci benn tomb boobu te tomb yu bare bare ne jërëjëf sëñ Bakke Mohamed maa ngi santaat bu baax a baax ci occasion bi nga xam ne may ngeen ñu ko pour ñu addu ci lu nga xam ni sénégalais yëpp la soxal ndax constitution yaakaar naa ni doon na lu nga xam ni réew mu nepp mooy njee wax doxalin ba mooy fondement bi euh, bu ñu ko càmbaree nag yaakaar naa ni Sénégal gi ñu bokk ñeenti président jaar na ci te ñeenti président yooyu kenn ku nekk yaakaar naa ni euh, jaar nga ci réforme constitutionnelle bu nga xam ni sukkandiku nga cee pour seetaat nu nga xam ne réew mi noonu la ñu yokkee yorin wi noonu la ñu koy yaatale la tàmbalee ci Senghor jaar ci Abdou Diouf jaar ci président Abdoulaye Wade ba yegsi ci moom euh, président bi nga xam ne moom la ñu xam ne tey ci baaxu suñu doom muy euh, le président son excellence monsieur Macky Sall euh, ni nga ko waxee am na yéene ju yaatoo yaatu ju nga xam ni biraloon na ko askan wi parce que loolu aussi nañu jàmbarke ni boo dee laaj am réew vraiment da nga am yéene ju nga xam ni vraiment da nga ko samp pour que askan wi xam ni yow mii li nga fi fekkoon bëgg nga cee dolli dara loola dañu ko koy nangul ci yéene bu nga xam ne vraiment amoon na ko suñu soon nañ ko ci fànn yu bare bari moom ci taxawee wante loolu wax benn la ci nag loolu loolu nga xam ni mooy wàññi mandat bi de sept ans indi ko ci cinq ans nga xam ne vraiment loolu bu ñu ko seetee lu lu lu soxal askan wi la ndax ni mu ko tuddale c'est-à-dire moom ni mu ko ni mu ko ni mu ko saytoo woon di def promotion bi tax na ba nit ñëpp ci lu leen focaliser waaye effectivement noonu nga ko waxee tamit c'est-à-dire lu jar a bàyyi xel la ci eh, projet de constitution de réforme constitutionnelle bi ndax am na yeneen point yu mu ci boole yi nga xam ne dem na ba ma fukki point ak ñeent yu fekk ci boobu kon muy fukki point ak juróom kon loolu laaj na yaakaar naa ne xalaataat de manière la ci étudier projet bi point par point seet lenn lu ci nekk la ci njiite askan bi ndax constitution moom luñ ci xës wote ba samp ko rek yaakaar naa ne loola euh, lu ñuy doxal la waaye moom am na leneen lu mu ci indi lu bees mooy tëj gi mu nar a tëj loolu ba ginnaaw moom kenn dootu ko laal kon loolu doon na lu am solo lu nga xam ni vraiment ak yaatal ak waxtaan ak jàngat ak leeral bu nga xam ne nit ñi waroon nañ ci topp point ñoom waxtaanee ko ñoom diisoo ci ñoom ba projet ba muy soumettre doon ko jaarale assemblée nationale ci président assemblée nationale yóbbu ko ci euh, comment dirais je euh, conseil constitutionnel ba jëlloo si ko ci moom ba mu war ko soumettre ak bi ñu ñu ñu ñu ñu ñu voté ko yaakaar naa ni loolee laajoon na sax waxtaan wu yaatoo yaatu li ñu ko waxee point pare kon yaakaar naa ni tey jii du ñu toog ba naan lu tax nit ñi focaliser wu kese kese kese ci benn point boobu nga xam ni moo moo moo concerné réduction wu mandat bi wante kon point yépp xëy na dana am ñu nga xam ne loolu soxalu leen parce que bari na ñu nga xam ne du caagin ci président Fallou wala président ñàkk a faru parce que loolu xëy na candidat wala ñun politique yi la gën a intéressé wande donte tax intéressé na ñëpp sax wande la ëpp solo mooy askan wi suñu aada suñuy coutume suñu nekkin cest naka la koy suuxate ci biir constitution bu nga xam ni loolu la Sénégal di parce que Sénégal nag nañu d'accord que ni d'abord euh, euh, c'est république waaye wëlbatikuwaat day réew mu nga xam ne aussi nañu seet ba pare ci mu toog ci wàllu diine ci wàllu doxalinu askan ci wàllu nekkiin dafa doon réew mu nga xam ne dafa lamboo ay facettes yu baree bari te du ak damoo ci dara wante yaakaar naa ni Sénégal bu ñu ko seetee ak diplomatie ak ci ni mu mën a jaxasoo ak réew yëpp c'est-à-dire lu ci am solo lu maam yi saytu ba ñu kon nag réforme constitutionnelle bu nga xam ne dañ ciy tënk point yu baree bari dana metti lool lool lool ñu toog ba c'est-à-dire askan yëpp focalisé wu kese kese kese kese ci réduction wu benn point bi nga xam dafa concerne réduction wu mandat bi yaakaar naa ni loolu euh, laajoon na am njàngat laajoon na waxtaan laajoon na consultation laajoon na toog ba am consensus bu wér a yooyu xëy na sax am na lu mu ci junjoon bi nga xamee ni euh, euh, scénario bi samp na ko yebal aw nit ñu gëstu donte ñu baree bari ñun ci paysage politique bi c'est-à-dire ni ñu ko defee sax ak ñenu ko dénk c'est-à-dire doon na lu tey suñu xel parce que d' abord la ci ëpp bu ñu ko seetoon ba ci biir yaakaar naa ni tukkee ni ci dafa am lu fi jaar parce que les assises nationales dafay jaar jamono Ablaye Wade am lu ñu tënk bu ñu seetee ñi ci ëpp ci ñooñu ñu ca biir loolu tënkaat am luñ luñu lu ñu pare jébbal ko ko mu xool ci biir loolu nag lu mu ca jukkiwaat parce que noonu la demee c'est-à-dire scénario ba mu paree da koy soumettre président président xool la nga xam ne moom moo cay la tënku la nga xam ni moom la gën a gën a gën a gën a bàyyi xel mu jël ko euh, boole ko ci projet de réforme constitutionnelle bi yaakaar naa ni loolu dong doy lu nga xam ne kon ba tey lu lu féete boor la c'est-à-dire mooy tax sax vraiment jafe-jafe yi yëpp ñu am ko ci kii bi consensus et consultation ba ci waroon a am bien avant ñu yegg bi man xam naa ni loolu amu ci tey indi na bëri ay jafe-jafe yu indi ci ah, euh, damay jàll ci euh, Baye Abdou Niane wax dafa am lu sëñ Abba wax léegi dafay interprété comme koo xam ne dafay dafay ànd ak njiital réew mi nga xam ne moo porté euh, moo fi indi euh, sumb bi ñuy wax ndax su fekkee ne suñu àll ni ko waxee ma dégg ko réew mi la fi moo tax loo xam ne dafay engagé maanaam dafay ñor réew mi ñëpp waxuma rek ci mandat moom waaye su jeexee ak am ay génération génération ba ci ay siècle ay siècle lan moo tax mel na ak tëjulee doon ah? wala boog mel ne dafa am ñenn rek ñu woo bàyyi ñi ci des ndax ñu waxee ñi moom kenn boole wuñ ci day feeñaat ne dem implication bi waroon ci population ba ñu xam dëgg-dëgg ñaata tomb la euh, daanaka xamuñu ko loolu moo tax ñëpp focaliser ci moom ñëpp bàyyi benn tomb di ci waxtaane muy euh, muy euh, nañu wàññee mandat bi def ko juróom bàyyi ko ci juróom ñaar lan loolu loolu mu leen dale waaw jërëjëf sëñ Mbacke def naa li waral loolu du dara lu dul pour man opposition ndax dèjà bu ñëwee bu ñu dee wax ñoom di génn ak sortie bu ñu mas di def boo suivre fekk média bi amul benn sortie boo xam ne def nañ ko pour leeral nit ñi li référendum toujours ci coowul mandat lañ doon wax dèjà man ci seen porte-parole sax si laa dégg njëkk dégg mu ne deux mille dix-sept deux mille dix-sept bëgg bëre bañ bëre def naa bëgg bëre bañ bëre boobu comme ni ñu ko doon répété noppi population bi bu ñu répété woon tey li nga xam ne si ne mooy solo si nekk ci biir référendum bi tey du nekk loo xam ne si ne population Sénégal dañuy jóg di di ci di daal nga xam ne si ne écoute bi ci war a am amuñu ko ci kon man def naa ci côté mandat bi li ñu ci wax son excellence le président Macky Sall président Macky Sall bi muy dem élection 2012 ci yéeneem ak bëggam lu rafet ci la ne su ma gañee li ma bëgg mooy mandaa bi ñu yamale ko ci cinq ndeke man ñu bokk ak moom paat kooku wute nañ ci woon bëgg-bëgg mais nag li ma fii lii rek laa doon xaar mooy tey ñu jaar fi mu war a jaar ñi ciy dogal dogal ci lu ñu ci dogal bu boobaa ñun loolal la ñu nangu ndax ñun ay démocrate lan réew mi dëkk te gëm nañ la réew droit la kon nit ki mën nga am sa bëgg-bëgg nam mais nag la dogal ak lay am kooku yoon moo koy dogal président de la république bëgg na ko wax na ko tey comme ni waxee wax ji amul benn yoon boo xam ne si ne dafa jékki-jékki rek génn wax opposition bi ñoo naan mandat bi mandat bi mandat bi bon bu ñu génnee di coow ñu gis ne kat référendum bi coowul ci lenn du coowul mandat kon buy tontu ci coowul mandat boobu la leen di donc loolu moo waraloon point mandat bi peut-être gën a test ci problème référendum bi donc comme day dem na ñu dem ba ci conséquence constitutionnel ñu ne ko kat ay la yowén lii xëy na sa bëgg-bëgg la man dèjà damay maskaw maskaw sax le président de la république ndax damay gëm ne bëgg-bëggam peut être yàlla sottilu ko foofu ndax xëy na loolu moo nekkoon bëgg-bëggam ñun ñu bokk ak moom parti tamit ñun xamoon na loolu ndax même combat bi ñun fi ñu doon xeex pour mu def ko sépense la bokk mais saa yu mas a jóg pour taxaw di ci wax dañuy wax ngeen delluwaat te noppi ba ci université républicaine bi nga xam ne si ñun ndawi parti bi tasee mbuur di ko ci def dafa faa répété waat daan bu leen si bu leen ci wax yëpp danañ ko jaarale fi ñu ko war a jaarale lu ca génn bu bés baa ñu xam ne lii mooy li ci war a am donc jaar na fi mu war a jaar xamal nañ ko ne ko mandat yi mënoo koo laal tey ci ñun li mu gëmoon a na am nañ ci satisfaire ndax man li ma gëm mooy Sénégal réew mu néew doole la réew mu ndaw la tey bépp président de la république buñ fi fal cinq ans mënoo cee liggéey li nga bëgg a ndax cinq ans pour man temps bu gàtt la ci réew mu mel ne Sénégal li am solo nag mooy référendum bi comme point yi quinze la woon am na bu conseil constitutionnel génne ne bii lii mënut a kon tey li ma fi may xaar man opposition bi mooy loolu ñu teel cee waxtaan te comme li mu naan bon xëy na ñoom dugguñu ci amuñu ci information bi ñu war am son excellence bi man mooy xalaatee benn affaire woo ci ñi ci war woo ñëpp kaay ma woon nag dañ may wuy si force kenn sañu ko. Mm-hmm. donc ñoom ñoo boycotté affaire bi noonu mun saa jaar. Euh, léegi euh, dañuy jàll ci sëñ Xaadim mën naa jàpp ne am na ci yoo xam ne yéen nga interprété comme étant un opposant euh, waaye li ma jaaxal sëñ Abdou mën naa am sëñ Xaadim dina ko tontu. Mm-hmm. est-ce que opposition bi moom moo war a leeral nit ñi dañoo référendum ndax opposition bi wuuteeg référendum c'est ça waxuñ ne naa def nangam. ak itam ndax. ni sortie yi di amee léeg-léeg dama président de la République topp naa ko ci tribune Nations Unies mu wax mu wax ko man danaa réduire sama mandat topp naa ko mu dem Chine en 2014 euh, mu waxaat lu mel noonu dem na Abuja waxaat lu mel noonu booba dafa mel ne mu ngi ci bitim réew te muy wax dafa ñoroon na ko laa bëgg wax waaw léegi nag dem ñoroon na ko euh, li may laaj opposant yi moom li ngeen doon séntu ci président euh, surtout ci ci ci procédé yi tout d'abord fi mu jaar maanaam ak nu mu ci doxale ذا المويد في راسي في الخارج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آخر لوات آه، جتايدي آه، لما يوحر ايك آه، سامن بوكني يحمل عفير بوكني موي سنقال دا قطول فو خمني ويوي دفا تي دبا ويوي جيم نحنتي بس كون منو يري ريو خم لنغا وارا دخل يب opposition ëlbati ku naan ñooy jox ñooy informé opposition mënta informé président de la république c'est lui qui toutes les informations nécessaires moo ko war ci askan bi wax nañ sànq ne euh, point bi ci gën a fës mooy wàññi mandat bi mais moo ci war a gën a fës parce que moo waral référendum bi suñu waxantee dëgg référendum bi moo ko waral moo digee woon ne da koy wàññi kon loolu moo wund référendum bi kon moo ci war a gën a fës te bu ñu waxantee dëgg benn point rek la waroon a doon muy point boobu waaw réduction du mandat li waral mu waroon a doon point boobu mooy moom xamoon na ne il a été élu pour 7 ans mais moo engagé pour wàññi ko mu jox peuple bi nag parce que le peuple est souverain le peuple est au-dessus de toutes les institutions kon bu ñu nax naan ay constitution constitution du kaani peuple bee ko ëpp doole fouf le 23 juin peuple bi moo génn janoo constitution bi ñu dindi ko kon dafa am loo xam ne as bu xasee joxe kàddoom ko war a sàmm bu ñu naxante Macky Sall li mu def moo ko tey le président de la république moo def exprès mën naa am nag amoon na yéene ndax ni ma ko daan déggee ci njëlbeen gi ni lu na ma ne amoon na yéene mais gis naa ne am nay responsable moom mi xam ne ci dara yu ànd ak moom ñoo xam ne fu ne yuxu lañ fa nekk du wàññi parce que ñu bëri dañoo jàpp ne politique moom wut teraanga lañ ko jàppe lu noonu nit ki da ngaa war a servir say localité servir askan wi bañ a xool sa bopp yàlla mooy fale mooy folle bés bu ko wàññi woon tamit du tee bu ko Sénégal yi waree falaat dañ koy falaat wax dëkk ñun en tant que opposition rafet luwuñu démarche bi mu doxalee ndax gore sénégalais dañ koo xam ci sàmm ay kàddu sénégalais dañu am ay référence référence yooyu ku mel ni Cheikh Ahmad Bamba lu ko sonaloon yépp bokk na ci fonk kàddoom parce que am na foo xam ne ba fa tollee mën nañ laa wax nga teg sa kàddu ci suuf ba mucc waaye kàddoom la sàmm ba mu jaral ko lu ne mu traversé ko kon ñun ñi nga xam ne ay juddit lañ ay taalibe lañ lu ñu ànd ànd ànd ak Macky Sall bu ñu ko nangul yenn ñi dafa am loo xam ne as góor moomu ko boo xasee wax da ngay sàmm sa kàddu ñun en tant que opposition rafetluñu doxalin bi Macky Sall def. Euh, leer na xam euh, ndem waxtu bi nag li ci li ci des man naa bañ a bari. dama bëggoon ñu avancer ci beneen point surtout ku demee ne Serigne Mbaye mi nga xam ne loolu nga daara dana ko yitee lool. mooy li ñuy wax forme républicaine bu état euh, état dafa bari nu muy bindoo ci noo xamante ci lañ koy saytoo waaye naka jekk forme républicaine mi ngi fi woon comme ni ko président waxee ci message bi mu joxee à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 lu yàgg nag waaye ab citoyen ndaw daal rek la deux minutes ni ma ciy duggee mooy du ma tawuma fenn waaye man damaa am déception wax dëgg yàlla ci même mbir. Mhm. ñaari mbir mi ci njëkk moo Sénégal am indépendance bu toll cinquante six ans ñu am ñaari alternance ay nit juddu fi président bokk ci juddu deux ans après l'indépendance jàng ba nekk président de la république may déglu ñi le droit ak ñi pratiquer droit mënuy jugoo ci ay de droit c'est une grande déception li ma jàpp mooy wax dëgg yàlla waroon noo weesu fu ñuy werante ci ay mots ay ak cinquante ci ans après indépendance ci kaw loolu may ne ndax yellu ñu jël constitution bi ñu ko bind ci pulaar ak wolof wala séréer loo xam ne kenn dootu ko werante fekke ko bu ñëw la boobu la deuxième bi moo di concernant le président de la nga xam ne mooy porteur réforme hmm. man daal dama jàpp ni nit bu fekkee dafa jàng ba mën a yor am réew ñu fal ko mu doon wax dara bañ ko falagut biñ ko falee mu jël les meilleurs constitutionnalistes du Sénégal ko waruloo mën a entretenir pendant ñeenti at lu mu ko wóor du am parce que jàpp naa ne lii nii con euh, constitution bi 2001 2001 ba léegi président bu ko bëggoon a mokkal sax mën na ko fee mokkal mokkal waxuma moom ci boppam conseil juridique bi ko waaye moom jàpp naa ne waroon naa mën a xam lii mën naa nekk wala mënta nekk léegi lu tax mu xam ko ba pare di continuer répété damaa jàpp ne day dellu ci wax ja ma njëkkoon a wax kon nit ñi jàng noonu dañ loolu laa gëm man man kaw nga daara yi daal lay naax. loolu laa gëm donc li may ñëw léegi ci constitution bi ci forme républicaine bi président dafa wax ci discours am ci 31 décembre ne kat dañuy verrouiller la laïcité pourquoi mu wax ko damay parce que li tax mu wax ko laay wax li tax mu wax ko mooy la réforme du président dañ ko personnaliser sur une période donnée. c'est une personne dañ ko personnalisé de 2000 à 2012 personnalisé ko ci benn nit bu fi nekkoon. li tax moo di waa CNRI ak waa ACIS ñuy def campagne di def loole dañ dañoo boycotté woon ay élections amuñu député ensemble dem retrouver pour bëre contre Ablaye Wade. en 2000 Serigne Saliou Mbacké mii ci Touba jël na ab lettre bind ko jox ko Tahibou Diakhaté li may wax lu leer la mën yónni ko ne Ablaye Wade na génn laïcité. ba mu fa ñëwee mu ne ko jox nga ma leetar bi li may wax sëñ Moustapha Abdou ko wax mu ngi toog mhm. mu ne ko laaj bi damaa bëggoon lii ngay def nga génne ko Ablaye ne ko danaa ko def mhm. waxuma politique damay wax usper moom mhm. ba mu demee mu bind ko avant projet bi jox ko Moustapha Niass en tant premier ministre premier ministre à l'époque Moustapha Niass bi ñu ko liiree da ko mu wax ko Ahmed Khalifa Niass ñu wëlbatiku dem ci rajo yi ne Ablaye Wade ngi bëgg a tas réew mi parce que laïcité ku bëgg sëñ Saïd bu noppi Ablaye Wade amul ko jàppale bu noppi. Hmm. le pourquoi maanaam loolu moo andi lii intangité bi. ñu ne dañ ko dañ dafa am sax intangibilité. Hmm. Hmm. loolu nag dama jàpp ni xeer aw xeer ku koy defar ab constitution warul ko personnalisé. d' accord naa ci ba tey waruñu mën a man wàññi mandat président de la république yónni ko sept ans def ko cinq ans parce que moom moo ko bëgg parce que ba tey dañuy personnaliser le débat la constitution sur Macky Sall. je ne suis pas d' accord d' accord ma ci. mais dañu def une constitution boo xam ne toutes les forces de la république surtout chefs religieux yi ak nitu diine ñi imam yi dañ leen laaj seen xalaat ba xam dem ba tey yi ña fay dund te gëmuñu yàlla ñu laaj leen chrétiens yi nekk ñu laaj leen ñu fexe ba am une constitution coutumière boo xam ne day da ànd ak suñuy coutume nga xam day boo demoon ba ca mangu përi ñu ne la ah loolu gis nañ ci suñu bopp loolu man laa jàpp ne mm-hmm. mooy forme bi nga xam ne moom lañu war a def buñ dindi lay laïcité bi itam bon loolu bu ma ci wax lu leer parce que ñi leen gën ñëw dëw waaye man position bi de manière générale lay wax nañ ko def ci kaw ñu mën a protéger suñ kilifa diine par exemple l'article quatre vingt dans la constitution bu dee Macky Sall koo laaj jàpp mais loolu war su nañ ko mën a wax fii wax Cheikh Amadou Bamba ba kenn ko calculer wala ñu wax ko ci Alhaji Malick mm-hmm. wala ñu wax ko ci même la nation ñu wax ko même ci ña fa jógee ña fa jógee bu yàgg yàgg Cheikh Amadou Papa Diop ak ñëpp ñu wax ko ci. pourquoi parce que ñooñu mooy suñu foi mooy suñu ressource bi nga xam ne def nañ fi xam ne ñun gone yi ak mag ñi ñëw ñëpp dañuy référé wu ñoom man jàpp naa ne constitution bi projet bi dafa am lu ci làkku duma politicien waaye li ci làkku mooy politiciens yi dañoo wër Macky Sall ak république bi da doon ay tabaxal kat. Mhm. mais jàpp naa ne am réew mi su ko tabaxal. man baat la. la ñuy ñu téye ko téye ko di ci wax comme neexal ñu ne lii rek tabaxal la. Mhm. jàpp naa am ku ko bëgg a développé doo ko tabaxal li ci des mooy damaa jàpp ne war na bàyyi France bi ñuy toppal. c'est grave il est temps jël mooy rek mu dafa dégg barki démb ñu ne France danañ aaye mousse toile yii 2018 alors que déjà ñu def ko alors que on est représenté sur le plan ci li ñuy wax ci affaire euh, environnement. Sénégal représenté wu ci 0,1 pour cent ci mousse yi. alors que nous nous sommes en avance li may wax mooy Sénégal dañoo xam te ñooruñu. naan fexe ba jël ndongo daara yi. maa su sëñ Bakir ñu xool ñu mel ni lu dëppoog la ñu xam. ñu def ci ab constitution bu baax moo xam day laïque moo xam day coutumière moo xam day religieux waaye nax ñi daal war naa jeex nag wax dëgg yàlla na jot. nañu fere nax laa bëgg a wax. Hmm. jërëjëf euh, Serigne Mbaye donc euh, ngeen ko moom itam ci foofu mu àddoo euh, foofu sëñ Mamor dama fi ñëw ak yow ndax yow itam comme que société civile nga bokk dégg nga li sëñ ak itam. société civile daanaka mën nañoo jàpp ne dafay dafay dafay aar waaye day taxawaale képp koo xam ne du identifié wu ci parti mën nañoo jàpp ne ñun ñëpp da ngeen leen mën a boot da ngeen mën a laaj seen yellee ci tomb bu njëkk bi mooy duñu fi wax ci réforme daanaka coow li lépp yëmul dund ci benn tomb bi ci des mooy la forme républicaine de l'État euh, yéen nu ngeen ko gisee ak ndax bokkoon na ak dëgg-dëgg la ngeen doon séntu ci euh, lu yàgg lu man ñeenti at boobaak léegi ñu tëye ñu fi di ñu wax ne lañ soppi nangam ci conseil jërëjëf sëñ Mbacke lay sant ci laaj bi di ko rafetlu xam naa damay xaw a bokk suñ mbay li mu wax ñoo ji bokk taxawaay ñoo ji bokk gis-gis waaye moom dafa daf koo def langage diplomate man nag dama koy def langage man damay wax ne senegal bu juddoo ba tey moom dafa ne am na indépendance amaguñu indépendance ah di oui deuxièmement amuñu amaguñu constitution yéen ñi jàng yëpp boo foyetee constitution bu mu jeex constitution France ñu jóge copie ko leen constitution dafa naa mooy ñu bu ñëwee bu dee l'islam ni mu koy tënkee mooy alcorane alxuraan lépp lu laal jullit bi àdduna ja constitution lepp lu laal citoyen du Sénégal bi daf caa war a bii ñu am ak bi ñu bi ñu waaj def yëpp amu ci benn boo xam ni laal na sama maam ji nekk ci tuwal bi laalu ko un la ci ne xamul lañ ca def kon su fekkee dañoo bëgg Sénégal nekk ni ko suñ mbéy modernisé def ko langage diplomatique dañoo war a jël suñu aada suñu cosaan ak baax tënk ci benn cause mm-hmm. tàmbulee ko ci Thierno Ousmane Ball lam fi defoon suleyman baal lam fi defoon ñëw ba ci ñoom lat joor mhm. encadré ko li sëriñ tuuba andi mu nekk benn constitution boo xamante ni si ñëpp dinañ ci retrouvé waaye lii fi nekk amul fenn foo dégg ñu wax la daara ci constitution amul fenn foo dégg ñu wax la kilifa diine te depuis cinq ans bi dañoo amee indépendance ba tey ku bëgg falu ñëw ci service bi rawatina fii ñu def ci tuuba kon lu tax téere amuñu ci benn cër ci biir constitution bi kon li ñu yor dañuy ko maanaam ni ma koy waxee mooy euh, mën naa maa jël référence ci Serigne Touba bi mu ñëwee dafa am lu mu andi loolu mu andi di lu gën lépp waaye ñi mu songooloon ñi mu jàmmaar looloon ñoom itam dafa amoon lu ñu andi bi nga xam ne Serigne Touba dem na ba ñu mu fi jógee dama ko jënd rek mais mi ngi sama table sax man naa ko lire mais euh, ba ñu fi Serigne bi jógee ñun ñëpp xam nañ ni. ci loxol tubaab yi la nekk may ñu ko jàmm may ñu ko saram ba def ko résidence surveillée ba mu mu ñibbisee Tuubaa bi muy dem mu wax mu jëf ñu gis mu bind ñu gis ñu euh, liir mu wax ñu dégg jëf ñu gis ba eggoon ci tomb ñun képp koo xam ne mën naa bind ak a jàng ci làkk national yi sax mu mën a doon président conseil yi ak yu mel noonu te loolu dafa mel ne ak kii la boo xam ne ñu jàpp nañu lu am solo la sëñ bi euh, Mbacke baal ma bala ngaa kon uh-huh. làkk national yi codifié guñ ko egg guñ ko <laughs> <laughs> ak euh, li ñuy wax naan këpp dal ndox ak ndox ak waaw loolu la ñu bëgg a def ah. ku mën a bind làkk ñaata ku mën a bind yow boo bindee wolof ma bind wolof mën bokk lu ñu ko bindee ok loolu dëgg na waaye itam dama jàpp ne ndeem principe bi am na fi principe li nga xamante ni moom la ñu nàmpal may nañu ñu koy waxtaane may nañu ñu koy bindee ngir man cee delluwaat tam xel loolu avancement la boo xam ne am foon bu njëkk noonu itam loolu la yeneen amee comme tomb yi ma tiim muy ko juróom ndax sax euh, boobu ba ci dindi mooy dafa wax ne li ñuy wax rétroactivité ah. moorul am ci ci ci ci juróomi at yi mm. maanaam juróom-ñaari at xam dañ koo tàmbalee woon tekki bi amagul duñ ko ci boole ah. tomb li mu la mu boole mooy président ak mandaam la boole ndax dafa ne président bi ñaari yoon lañ koy man a fal yu yoo xam ne yu tegaloo la waa juróomi at mm-hmm. boobu nag da caa yokkoon ne maanaam juróomi at yooyu ñu koy delloo dañ cee war boole bii ñu nekk loolu rek lañ ci dindi waaye tomb kon tomb boobu dañu léegi nag suñu àll mm-hmm. dafa mel ne euh, su man su ma dee gisal mel am na ci ay ay avancement yu jaar. wala boog soo dégg mm-hmm. ndax euh, parti politique yi. wante de bëgg ngeen gën a dëgër ci système euh, bi bi ñu nekk. Mhm. Euh, candidat indépendant am na ci. Mhm. ci président ak bonne gouvernance rawatina gouvernance locale. Mhm. ni ñu ko bëggee dëgërale muy gox goxaan yi. nga xam ne ñoom ñooy saytuwaat seen bopp. ba pare ñu constitutionnaliser ko mu delluwaat ci constitution bi. yooyu dafa mel ne ay avancement la ñoo xam ne jàpp naa ne am fi woon. am na loolu yéen da na a euh, da leen Eh, déedéet Serigne Mbacke dama lay santaat bu baax a baax vraiment di sant tamit ñi ma bokkal plateau bi ndax euh, premier tour de table bi maanaam dafa génne yéene yu bëree bëri ci di jëm ci lii mu mel ni loolu rek vraiment euh, lu lu lu war a interpeller le président de la république bi nga xam ni c'est la première institution du pays ci waxtaan wu mel nii bu fekkonte ni li ma wax parce que absence de consultation boobu toog waxtaan ak ñu yaatal ko yaakaar naa ni loolu li problème projet de révision constitutionnelle bi yëpp problème boobu la parce que li ñuy wax li lépp nag ay sénégalais lañu du caageen cuk man responsable politique PDF la du sama rakk ji du APR la du sama mbokkum euh, sëñ Omar mi nekk nekk réew mi mais bu ngeen déggee donga daara yi di Serigne Mbaye dégg Serigne Mamor mi nga xam ne société civile la pratiquement suñu yéene li ñu wax lépp dara génn ci parce que Sénégal la ñoom ñoo ko bokk te it am na lu am solo lu ma doon junj sànq que ni c'est-à-dire man masuma d'accord ñun les acteurs politiques yi dëkk Touba parce que bu ma nee Touba mooy ëttu diine yi Sénégal loolu daf koo taaw naka ngay mën a xalaati une révision euh, constitutionnelle sans pour autant nga def consultation bu yaatu dem ci askan waxtaan ak yoom te yooyu damay rappeler ni xam nga doon naa junj léegi ne président yi fi jaar yëpp kenn ku ne def nga réforme constitutionnelle mais nañu déport ci Senghor Senghor dajante na fekk nga xam ni man xaw ma du ma bu ma ne idole sax day day xaw la waaye day day sama lépp muy Serigne Cheikh Amadou Bakké Gaynde Fatma Senghor problème ak Serigne Cheikh moo doon li mu defoon rek problème mu laïcité bi da caa nekkoon problème mu famille da caa nekkoon Serigne Cheikh xam ne loolu dëppoowul ak aaday Sénégal bokkul ak coutume Sénégal mais loolu moo ko opposé woon xëy na ñëpp jéggewuñu woon wala gisuñu woon Serigne Cheikh fa mu doon waxee la ma gisoon mooy li ñu doon wax rek parce que bu dee dañoo bind te donga daara yi xamuñu lool te loolu boo ko toppee effectivement ba ci suñu ñi ci aada yi c'est-à-dire ça pose problème ci ni ñu nekk Sénégal lan mooy cosaanul Sénégal Senghor bëgg koo def ci constitution Serigne Cheikh ne attention mais lii man xam naa ko lii donc mais nit ñi déggal ñoom ñeneen ñi ci waroon a ànd ak moom ca loolu ci combat boobu defuñu ko pourtant laïcité boobu ci constitution bi ngi wax léegi jamono Serigne Saliou di Abdoulaye Wade di di doon defaat aussi la même chose bi mu bi mu accédé comment Serigne Touba di Serigne Saliou effectivement notification bi defoon na ko nañ ko dindi parce que ça heurte les consciences day gëtte parce que Sénégal nous faisons plus de de la population ay jullit lañu naka nga mën a nekk ci réew mi mel noonu nag te joxoo cër ñooñu c'est-à-dire looy def lu ne soubassement ba wala la koy tàmbali laloo ko parce que ça su problème loolu la mën a indi loolu la mën kon consultation ak yaatal bu fekkonte ne par exemple na ko suggestion yi génn yëpp mais effectivement ba coow lii yëpp du am te lu dul bi c'est ça qui pose problème c'est-à-dire moom jàpp naa ni kon li ko soxaloon ci lépp sëñ sëñ sëñ Mbàkke c'était d'abord ba mu nekkee candidat c'est-à-dire nañu ko fal mu dikki def une promesse candidat promesse électorale en tant que candidat Macky Sall bu d'abord ci yoonu yokkute mais entre les deux ci benn bokk yaakaar mu renouvelé waat ko wante jumbi ko effectivement lu ñu xam la après que mu toogaat ba muy waat mais mu génnaat bu demee États-Unis bu demee France bu demee Londres mu dem la question de la rémission de son mandat pour wane ni moom c'est-à-dire vraiment na na doon ku nga xam ni bu fi jógee kenn dootu fi def lu yees c'est-à-dire acte bu pour moom da koy jël lu nga xam ne lu lu kenn xamul la ñëpp dañ ci war a roy c'est-à-dire loolu moo koy propulsé c'est-à-dire au demande de tous pas moi tous les tous les présidents yi bi du ma ne Sénégal mais loolu lay posé parce que xëy na feneen gisuloo ko fa vous voyez loolu d'accord mais jàpp naa ni promotion boobu loolu moo ko ko ñor kon bu ñu see ci li ngay vraiment yu bëree bëri ci nekk yu nga xam ni euh, du ma ni lu yéene woon la mais effectivement lu Sénégal yi yéene par le renforcement de la démocratie Abdou Diouf Senghor am na ci Abdou Diouf am na lu mu ci góorgóorlu mais su Wade xam nañ ni moom bu bu ñu yi vraiment Ablaye Wade la vraiment Ablaye Wade la te moom xam na fu mu jàngi xam na fu mu roote yaakaar naa ne lu mu doon lu ne man nag du ma ni lenn waa ne ginnaaw yàlla vraiment a ablay wad wala jangé ko lepp kon fi mu ni ni lu mu nampon vraiment mom lay tokantiku mom lay wirité lepp ci ablay wad lako jangé kon nak li ngay wax ni ñun d'accord nañu ci renforcement de la démocratie renforcement comme comment dirais di di parti politique ak yu yaatal gi mais ci mal lool da ko fay fekkon c' à dire est estis lu mu jàngoon ci ablay wad les projets étaient là dafa dik rek tegaat ci table bi tegaat ci table ji yeesa rek la xam nga euh, amul benn président bu xam li li li ñuy wax nii c' est à dire lo loo farlu farlu bàyyi mébét waaye ay mébét ci mébéti Ablaye Wade li ñuy wax nii lépp lépp ci la bokkoon. waaye yaakaar naa ni ba mu wuuteeg Ablaye Wade rek mooy Ablaye Wade moom bi muy def réforme constitutionnelle yaakaar na ay conseillers da doon woo nit ñi kenn ku ne waxtaan ak yow donte amoon na ay conseillers yu ñu jëloon saa yu ñu ko dimbali ci rédaction ba di ko dimbali ci ni ñu koy tënk waaye terewul dafa waxtaan ak nit ñi. ablay Wade dafa waxtaan ak nit ñi aussi bien les acteurs politiques mais waxtaan nak euh, ñëpp la société civile ñëpp waxtaan nak ñom donte xëy na yéen am question yu nga d'accord ci woon waaye nag waxtaan won na te ñàkk waxtaan bu Macky Sall ñàkk waxtaan nak doyam ko ci ablay Wade mi nga xam moy leppam yakana ni problème bi yëpp yëpp yëpp loolu ko indi ba tax ni fi nit ñi loolu rek lañu gis mais man c' est à dire maa ngi wax dàmbale ni ci plateau bi kenn xaw ma ñëpp la def waaye personnellement sama intime conviction la man nit laa ko nga xam ni ak lii ci commande bi conseil constitutionnel waxaat defaral lii ci lii lépp man damaa taxawoon man ci même loola buñ ko bàyyi woon kooku ak Macky Sall mu ne day dem réduire mandam jële ko ci sept ans yóbbu ko cinq ans man ci ñam ci ñi naroon a taxaw battre campagne pour ñu voter non réforme bii yaakaar naa loolu maa ngi ko wax ni waa ne yàlla seere ne loolu moo nekkoon ci man au-delà wu réduction mandat bi li ci nekk lépp à part naxta ndaw ndëgg sërëx yi kii di wax ci lu ñu wax la société civile nañ bàddil ko mu neexati élection bu na bokk mais loolu que da doon poser problème nag la nga xam ne yorul euh, parti amul lu ko wër yorul militant c'est-à-dire ça pose problème mu dem directement ci élection yi demee noonu la parce que c'est très sensible xam nga élection collectivité locale moo gën a sensible moo gën a doy waar mbirum président parce que présidentiel lu ci bare bare dafa am yu la jappale les institutions yi nekk ci suuf lekk lu ci biir ak yeneen jàppale nañ wàññeel nañ lu bare bare nekk ci askan bi c' est à dire moo gën a woyof kon yooyu jàpp ay naxta ndaw la c'est à dire bàyyi li ëpp solo jël leneen ñu biral ko nit ñi tegal leen ko comme maire booy defal jëriñ pour yootaan leen je pense que Macky Sall ci dynamique boobu la nekkoon te loolu la def d' ailleurs ci ci pandaw ja bu ñu wax volonté mu am fenn fu ne mu wax ko du woon opposition moo doon wax du woon keneen mu muy leeral sama rak wax na ko léegi vraiment c'est pas à nous l'opposition wala société civile oui, oui, parce que le président moo yore toutes les institutions woote boobu bu ko effectivement la communication promotion de ñëpp a koy bokk def mais defu ko mais daf koo téyal boppam di ko def la ko ci ñoroon nag mooy nekk ci lii di xor-xoral di nax nit ñi di nax nit ñi di nax nit ñi ba toog léegi ni li ma conseil constitutionnel loolu laay wax loolu lay def wande ci yan anam la ko defee naka lay toogee def ki ne suñu may ñu sax vingt jours yu nga xam ni bii ñu génnee lii ñu ne lii doom la nit ñi mën ko xoolaat la preuve ko ñun bu ñuy ñëw fii d' accord xëy na mënoon nañu nag nga a topp ci xëy na gëstu ji dem sotti mais texte bi ñun on l' avait pas c' est pose problème te comme ñun ñoo amul lii rek ana askan bi lan lañ ci xam luñ ciy addu ñu bëgg leen a boteloo. jërëjëf sëñ Abdou day waar a doy waar. donc euh, benn bi mooy posé waat toujours mooy implication bi maanaam boode gi askan wi bokk na ci ñoom kujje gi. Eh, waaye ba tey damay damay des ci li ma waxoon dafa mel ne en tout cas ci forme bi rek da ngay gis ne am na ay avancement yu ci am ndax euh, conseil constitutionnel ci boppam ak prérogative yu bari ñu ko jox ngir muy gën mën a saytuwaat lenn ci yoon yeeg yu mel noonu bu demee assemblée nationale ak député yi ak li nga xamante ni noonu la ñu waxaatee ne ñoom seen diggante ak ak exécutif bi maanaam ñi nga xam ne euh, comme gouvernement bi ak yooyu euh, dafa am nag loo xam ne dana ma dana ma xaw a jaaxal sëñ comme que mën naa jàpp ne yow yaa ngi teewoon APR et par temps euh, gouvernement bi lépp sax wala état bi euh, président ci daanaka at ñi lépp mu war terroriste ba mu ci bëggee boolee askan wi sax dafa julli euh, korite ba noppi mm-hmm. wax ci ne nañ leen di wone te woon naa ci conférence boo xam ne itam mi ngi ko ñasee ni ñoo ko defoon la paix mondiale wax na fa lu mel noonu ak kër ni mu itteele jamono lu tax yooyu ñun gis ñu ko te muy loo ne yaakaar naa ne ak mel na ne yitteel na ko lool itam ndax li mu tudd wax ko fa ñun kër mu ñëw xooqatal réew mi bari mu am avancement sécurité dina am nit ñi dañu nekk seen jàmm dañu am tranquillité ci la ñu war a gëm ak nañu a def te pare daanaka ñu baree bare doon nañu ko ci seen tool te gis ñu ko. waaw jërëjëf da nga dikk suuf rek ci sama mbokku. ñi toog suñu xaalis xam nga daf ne dama dégg ci wax mu jël ci référence koo xam ne mooy référence ñu bëri wala boog ñu mag muy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul defe naa Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul li mu doon daj ak yi coono yi ko doon daj yëpp du woon pour jëmmam dafa doon def pour diine l'islam comme Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba moo doon daj loolu pour diine l'islam le président Macky Sall ñu teg ko fi moom mu war a nekk fi nga xam ne siin moom mooy aar constitution bi pourquoi pas combat bu moom waru koo jaral loolu Macky Sall dama ne bu bu xool Macky Sall moom moo war a défendre les constitutions Sénégal tey kon yoon nii ko muy jalgati constitution hmm, ci mu am ci wax ndax ne waaw dafa jël ci moom ay ah, exemplaire ngir leen yooyu ah, mën na ko li taxoon di ko daj diine l'islam moo taxoon mais jëm moom taxul doon défendre diine l'islam président Macky Sall it lii xew ko nag lu ko lu ko metti la ndax bëgg-bëggam la mais dafa défendre constitution mais di ko jalgat sëñ point bu ñëw da tuuti rek dama cee bëgg a ndax ci côté Serigne Saliou Mbacké radiyallahu anhu xam nga daf ne da Ablaye bi mu def référendum daf ko wax ko mu dindi laïcité mu wax ci Moustapha Moustapha benn dossier Ahmed Khalifa Niass jot ci yuuxu ko mais dama defe ne tey Abdoulaye Wade population bi ñu ñoo ko faloon tey lu mel noonu ko amee lu mu delloo si waat population bi bu fekkee na nag defu ko defu pour defu politique xam da def rek pour bëgg a def njëriñu Serigne Saliou wala def loo xam ne pour njariñul askan bi na ko delloo si ci askan bi askan bi boobaa danoon ko defendre ndax askan bi rek ñooy woote mais du ancien premier ministre wala ab am am Khalifa Niass pour man ni ñu ko joxee ñooñu benn benn suwamputi ñun moo ëpp solo si bu ko defee ñun ñu xool ko li ciy ndigal ñu jëfe ko ndax ñun tamit avant tout ay taalibé lan taalibé Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba mhm. donc comme lu mel ne suñu àllaat fi mu nga may ma rek le président de la république ñàkkut a woote waxtaan dafa woote waxtaan euh, woote woote na opposition bi woo na opposition bi PDS ñoo ne ñoom duñ wuy ji euh, ak yéen ñeneen ci CNRI bi waaw ba noppi <laughs> ci woote la même société civile am nañu wuy ji dafa am na wuy ji woote nag xam nga nag bu fekkee ne da nga nekk ci réew ne da nga bëgg soxla réew mi ëllëg bien vrai que ne loo nekk nekk opposition war nga man di défendre ci population bi nga bëgg a jiite ëllëg ndax réew ci laaj bi saw doxin wu rafet ak say kàddu yu rafet dana la ñangaloo peuple bi ba nga xam ne ba liggéey boo taxawee laaj ñu man la ko jox waaw léegi ñëw na question bi ma doon wax bala moo gën a kii mooy dañuy gis ne toujours euh, atum lëmm Abdoulaye Wade mi euh, ngeen jégal ma ko waa PDS euh, son excellence le président mu ngi insister toujours ci nan la war a combattre terrorisme di tudd maanaam acte yi mu def ci lu demee noonu rawat na ñu mu woon Mali ak ñeneen ak ni mu jegee ci Mauritanie te ñu gis ne constitution moo gën a kawe ci mboolem yoon yi te ñun gisuñu ko benn yoon ci ci révision yi te man wax dëgg yàlla naa ci xaar lu waaw xam nga tamit suñu dàkk tey par exemple loolu avant référendum bi son excellence daf cee def liggéey boo xam ne si ne bépp citoyen bu bëgg Sénégal apprécié nga ci loolu ci wàllu xeex terroriste mais nag mun na gëm tamit tey dèjà quinze points yi mu proposé askan wi ñu naan dafa bëri dafa bëri Macky Sall tamit boroom xel la dafa am loo xam ne si ne peut mën na ko gérer ak état ñu lijj ñu saafara loolu mais dafa am loo xam ne dañ koy delloo ci askan bi ndax ku ne xam ne la loolu def na ci jéego boo xam ne si ne avant muy mat 6 mois Sénégal yëpp xam na ne président de la république jël na matuwaay pour aar réew mais pour aar peuple la donc kon côté boobu pour man lim ci dox ak lim ci jot a def pour man satisfaire nañ maanaam pratique la waaw pratique daf ko pratique pratiquer effectivement bon constitution bi mënul nekk fi mu toll nii 6 points muy jëlaat leneen di ko doole ci loo xam si ne mën na ko pratiquer kon defe naa loolu tamit day doon loo xam ne si ne dañuy pertaat temps bu bëri ndax bu boobaa kon coow li tey débat bii da ci duggaat te comme réew mi culture bi fi ñu doon mm-hmm. dañoo toll ci réew moo xam ne si ni ñun war a fexe mooy avancer suñu réew pas ñuy def débat débat yoo xam ne si ne débat politique sain lay ndax tey dam na may tuuti rek xam euh, nga dafa am yoo xam ne si ne sëñ bi dama ko dégg mu ne amagul démocratie kii amagul ah, indépendance sëñ ah, moom société civile la ko bay wax ne am na benn tout français bu fi ñëw fan yee di wax Moustapha Niass mu ne koy ñoo bokk xalaat ñoo bokk idées le président assemblée nationale te moom la en ah, l'occurrence la waaw xam nga dañuy waxtaan rek tey par exemple ñu jiite suñu réew ñu ci bëri France lañ jàng wala Amérique wala daal donc nit ki mënu leen a bokk même école bu leen génne bokk formation te du leen bokk école non li ma tax ñi jiite si ñu réew tey par exemple ci Sénégal amul benn candidat boo xam ne sii ni tey jàngee nga fii comme ni ko sëñ bi waxee doon doomu dara dara war a dara dem ci campagne ñu la jox réew mi ñii gën a farataal bi leen jox réew mi parce que mooy ñu génn dem bitim réew jàng nit ki nag fam jàngee nampe ko defalu ne ndimbalul yàlla la mën am mu am mu ñëw yor beneen programme ak beneen position mais bu ko amul rek formation ba am ak comme génne rek loolu lañ mën a indi. c'est léegi loolu loolu leer na waaye dafa mel ne pour man dafa am beneen polémique bu mu indi. lu euh, jëm ci wàllum terrorisme xam nga damay wax ne soo gisee fii dañuy fekk dañuy fekk consacré li ñuy wax euh, droit dafa am ak ay liberté. soo gisee Amérique après deux mille deux mille deux mille un jafe-jafe bi ñu am mooy parti ak ah, muy dafa mel ne dafay restreindre maanaam dafay xatal yellee fi nit ñi lu bare ba la ci jur am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi leen di topp soo déggee démb rek ñu ngi wax ne France euh, procureur général mi ngi woo koo xam ne moo jiite woon Guantanamo ak adduna bi sax jiite na Abu Ghraib mhm. Abu Ghraib bi nekk ci ci Bagdad lu tax ñu koy woo mooy dafa am ñoo xam ne ay président terroriste lañu mhm. ñu yóbbu leen ko am nañ fay at torturé leen xam ne defuñu dara. defuñu dara ñu libéré loolu lu mel noonu nag dafa am lenn euh, ci jëflante yoo xam ne constitution boobu wala njëkk consacré ba noppi. su ko defee loi ordinaire na ñëw wala loi organique ñëw war ko gérer waaye suñu ko bàyyee noonu état bi def te su ngeen koy topp su ngeen defee daaw avril mhm. am na ku ñu daaw Abu Dhabi mhm. euh, franco sénégalais la mhm. ma jóge na Syrie ñëw Sénégal ba français yi ñoom signalé nañ ko réew mi journal yëpp bindoon nañ ko signalé nañ ko pourtant bañ ko wooyee ko bàyyiwaat mu dem bañ ko bàyyiwaatee mu dem gis nañ ne boobu ma nga alep te mm-hmm. siri delluwaat na fa mu nekkoon loolu kon dafa mel ne jumtukaay yi ca war ak maanaam yoon mm-hmm. yoon ña ko war a lan moom la Sénégal am mën ko tey xam nga li ma wax kon loolu moo taxoon ñoo doon ci doon interprété man wax dëgg yàlla man sama bopp mm-hmm. doon ci xaar le président xam naa ndem dana xaw a sëñ sëñ xaarit euh, dañ man ci gisin wi suñu delluwaatee tuuti ci Euh, réduction mandat bi rawat ne mandat bi ñu nekk en cours mm-hmm. est-ce que la dëgg-dëgg nag yéen opposants yi wax ak ñu moo waxoon sept ans kon euh, cinq ans kon da ko waroon def dem élection en 2017 euh, dem élection xam nga sëñ Mbacke rafetlu naa loolu jataay bi waaye sama xarit bi nga xam ne moom féete ci nguur gi doon naa bëgg lool muy gëstu

waaw c'est-à-dire man bi may tudd Cheikh Amadou Bamba. Mhm. maanaam loo xam ne nii am na ay ñeneen ñu fi newoon. Mhm. ñoo xam ne maslaa nañ ko. waaye moom dëgg gu mu dëggu. ngor gu ne ci moom tax mu sàmm kàddoom ba daj lam ca daj. pour man mënuñu am référence bu ëpp kooku. ba tax na nit boo joxee sa kàddu. xam la la ci war a mën a tekk yëpp waaye waaye war nga ko mën a sàmm. non de surprise moom moo tax gouvernement de vertu bon hmm. gouvernement léegi kon kooku pour man amatul lay. man foofu laa tuddee Cheikh Ahmadou constitution nag du du alxuraan bu demee ba naan noonu la Macky war a défendre constitution bi kon moom xamut luy constitution xamut lan mooy alxuraan li yàlla bind bokkut ak li nit ñi bind. waaw mais nag bu fàttali yàlla bind la constitution. waaw luy constitution ci yàlla luy constitution ci kanamu askan wi ñun ñi nga xam ñu ci bëri jànguñu tubaab. Macky Sall ci boppam mooy jaamu ñooña mooy serviteur ñu bëri dañoo foog ne boo nguuroo yaa ngi def ñëpp déedéet yaa war a servir askan bi li sëñ euh, Mamour wax léegi dëgg la. constitution bi nañ ko def ci pulaar wolof lépp ñëpp xam ko léegi nag kon constitution boobu noonu askan wee ëpp doole moo waraloon référendum bi yaa ngi may laaj ndax réduction mandat bi ndax ñun pare nañ pour 2017 waaye bëggoon naa wax tuuti ci terrorisme bi bu fekkee ne may nga parce que point la bu am solo sama xarit bi ni mu ci waxee tamit xaw na cee juum en tant que ku nekk ci APR gis nga Macky Sall le président de la République il a fait une mauvaise communication wàllu terrorisme daf cee juum ay conseillers am conseil wuñ ko bu baax parce que Sénégal dafa doon dëkk boo xam ne dafa stable te loolu nag yàllaa ñu ko yàllaa ñu ci dimbale ba ndax kilifa diine yi fi nekk moo ñu may loolu. tey jii ma sëñ euh, le président mën na wax kenn du ko faale mais bu sëñ bi waxee ñëpp jëfe ji ko kon moo tax ñooñu dañ leen war a jox cër yi ñuy def nii yëpp dañ leen di leen ci boole. le président de la république nag moom wàllu terrorisme bi communication bi ci amee ak ni ko doxee ku xel di xalaat bu baax. waaw ni réew mi doxee waroo ci ànd ak moom. Hmm. ca problème mu Charlie Hebdo bi mu amee lan la def daf caa dem. Ah. mais ñun bi ñu laalee suñu sëriñ yi tamit est-ce que dem na ca te pourtant Sénégal la xewee lu tax demu ca c'est un grand ah, a poser lu tax yegg demul woon France mu demal boppa te lu mel noonu xew na Burkina Faso lu tax demut kon dafa am loo xam ne dañ ko war a xoolaat gis nga ñun. sëñ Maamoor am na foo xam ne foofu ma laal la fa tuuti yow mi bokk société civile. Mm. wax nga ba ne suñu constitution bi ay français lañu rek ay français ñoo fi nekk ba tey ñun euh, amuñu indépendance. Mm. li tax ñu ñàkk koo am yow ci nga bokk. Mm. yow mi nga xam ne gëm nga ne ci réew mi nga bokk ba pare te boole woo ci sa bopp. nga ne réew mi daal kon ñett yi ñoo ko moom politiciens yi ñoom la ñuy dogal baax na man bokk ma ci. déedéet ñàkk a def politique warta mën a tee ngay sensibiliser nit ñi nga xam ne politique ñoru leen. nga leen di sensibiliser ci doxinu mi ci ni war a doxe ak liy tax ñoom cër bi ñu war a am ñu am ko parce que tamit réew mi politiciens yi moomuñ ko ñëpp ko bokk ku ci ne war ngaa am xalaat buy tax réew mi jëm kanam mais boo ko jëfewul doxee woo ko ñu réew mi di demee loolu nag ñëpp ku ci ne dañ ci am sas politique yi tamit nañ ci def attention du caagin ne ñiy politique ñëpp seen jikko rafetul déedéet ñiy politique am na ci ñu baax am na ñu yàlla teral teraa nga taxul ñu tëb di ko def mais gis ne réew mi am na fu mu toll ñu war cee mën a wax di ci wax loolu moo ko waral ci wàllu réduction mandat bi nga ne ndax 2017 ñun pare nañu opposition bi. opposition dans son ensemble. dans son ensemble xam nga opposition bi waaw xam nga opposition bi dans son ensemble. Euh, ku ci nekk fa nga féete fa ngay mën a waxee. waaye du pour nga waxal ñëpp day xaw a jafe mais li ci am solo ba am solo. mooy le président Macky xam na ne pour opposition bi pare nañ parti ci ëpp solo parce que dafa am benn kuréel bu ñu taxawoon front patriotique boo xam ne ni. pour la défense de la République dafa am doole. ba mu ko xamee it am na stratégie yu mu def ci saasi ba mu xamee ne PDS réew mi ak bokk gis-gis ak yeneen parti yëpp def nañ ñu benn say xaw naa tiital waa moo tax yii mu def ni ñëpp mu xaw ko def mais nii Séné fii Sénégal toll nii bés bu ñu demoon élection bés bu ñu demee élection 2017 bu ñu ci demoon dana métti loolu ci Macky parce que foo laal mi ngi métti te nag Macky dafa doon koo xam ne ñun ñëpp dañ ko yéene mu am réussite. parce que réussite am mooy réussite Sénégal yëpp waaye malheureusement. ñun li ñu foogoon fi Ablaye Wade yóbbu réew mi ñu foogoon ne daf koy sànni ca kanam bëggam daal di deltuwaat ànd ak ay mag ñoo xam ne depuis 1960 la ñu woon mu bootuwaat ci seen ginnaaw tardeel suñu économie tardeel suñu diplomatie tardeel lu bëri ci réew mi sécurité réew mi foofu laay terminé ci wàllu terrorisme sécurité réew mi euh, dafa deltu ginnaaw ah waaw bu ñu demee ba ñun ab ab ab prisonnier bu ñuy wax booy jinne ñu koo téye ci biir Sénégal kon bu ay terroriste dalee ci ñun fu ñu jëm. xam nga loolu problème administration la moom. waaw mooy problème sécurité ku mën kon kay recul la recul la kon sëñ bi ngeen xoolaat bu baax. sécurité bi euh, jërëjëf euh, dafa mel ne kon ci li nga waxee en tout cas li nga xamante moo doon laaj bi ëpp solo mooy damaa jàppoon ne yéen itam. ñu dem ba dix neuf deux mille dix ñu doog a def élection yi moo leen arrangé waaye mais na kon jëkk yi voilà loolu kon baax na am na yeneen yeneen yoo xam ne feeñ na ci su fekkee ne sëñ Mbaye mi may waaj jox question euh, laaj bi su ci amee lu ci yokk waaye li ma ko doon mooy ci biir dafa wax ne euh, dañoo bëgg gën a renforcer li ñuy wax citoyenneté mooy nekkin wi ci réew nga yëg ni ci réew nga bokk ci biir projet bi daf cee woon yenn ay devoir nga xam ne nit ki day xam ne moom war na ci moom ci réew la bokk war na ci moom bu koy défendre war na ci moom war na ci moom sëñ Baye est-ce que nag loolu nit daara yi xam li ñu xam mooy discipline li ñu xam mooy fonk kilifteef li ñu xam mooy cohésion sociale est-ce que loolu duñ ci doo ci retrouver wu yow euh, comme sëriñ daara dafay ñetti indépendance bi ma doon wax te da koo gis comme si da koo gis moom moom man terrorisme bi ci boppam damaa gis ne ak privilège la boo xam ne ñun ñun occidental yi ko dañ koy jëfandikoo. donc man li ma gëm man dama gëm ne la France bu ko neexoon tey buy julli aju moom doomu sax duñ ko daal. te loolu France Sénégal mënuñu ko dara. la sécurité française jekk na lu jekk boo xam ne. bu ñu bëggoon tey Touba dañuy bàyyi ba dañu julli àjjuma te li may wax bari may def moom na ko Amérique nekk partout dans le monde loolu moom Sénégal tuuti na ci xeex ko nan lañ ko mën a xeex pour man conscience du terrorisme day am ñoom bu ñuy xeex day am aw lay lay wa mooy lan mooy ay stigmatisation lay jur wala ay injustice la ñuy fekk ñu provoqué alors que nous notre rôle pour éviter populisme bi li ma terrorisme li ma jàpp moo doon ñu bañ a fexe ba bañ ko de France bañ France lu xew caricature yi parce que France yi ba mu amee la ca xew di ca def mais ña ko def ak la tax ñu def ko la la bu toll yonent bi ñu caricature ko grave provocation la ma jàpp mooy sax ña fa yooyu mais ay forme la ay ay yu créer illness la boo xam ne programme bu ñu ficelé la boo xam ne ce qu'on appelle l'ordre mondial ñoom ñoo ko mm-hmm. bind bu yàgg mm-hmm. yàgg yàgg yàgg mm-hmm. te di ko doxal benn état mënu cee mucc état bi ci mën a mucc da ngay fexe ba sa biir réew nga bañ a fexe ba injustice bañ fee am ñu bañ caa jaar wala stigmatisation bañ fee am du jaar kon loolu laa jàpp ne moom monsieur Dieng def ci c'est vrai que li nga wax nii man ja d'accord naa ci constitution sénégalaise bi ñu protéger ci le terrorisme ni ñu ko ciy la mooy dañu jàpp ne l'islam bi nga xam ne moom la jiñ terrorisme partout dans le monde le soufisme amul fenn adduna bi koo xam ne islam suufi signalé nañ nekk terroriste ñun ba foo dégg rek l'islam baneen bay na chia sunna ñeneen waaye terrorisme suufi moom amagul même occidentaux yi ñoom seen bopp reconnaître nañu loolu xam nañ ko léegi man dama jàppoon ne nous sommes à quatre-vingt-dix pour cent des croyants sénégalais musulmans et soumis waroon nañu wut ci constitution bi ma doon wax bu ko waxtaanee woon ay canaux yoo xam ne dañ ciy protéger ay stigmatisation wala ay injustice yuy pare yuy jaar tubaab yi mën cee caaxaan lu tax ñu terroriste loolu jàpp naa ne doon naa ko séntu ci réforme président de la république. fi ci des ci li nga ma laaj. wax dëgg yàlla man li ma lii fii ci réforme yi pour man gisuma ci avancé au contraire débouche la ci parce que man du ma ab waaye l'esprit et la lettre mën naa ko différencier parce que man si on me parle de droit devoir humain et de droit humain li may xalaat toujours mooy ci homosexuel wala yu ne doon parce que dafay wax ne dara parce que soo lire rapport de euh, de Maputo dañu reprendre ces termes dans la constitution te moo doon lan moo ñu légaliser la constitution dans tous les pays de l'Afrique ay droits humains ay devoirs humains man pour man buñ ko dogalee fii ci Sénégal daañu jàpp boobu ñaari pour ëllëg ñu dem tribunal ñu ne ah lépp man dama ciy tiit man dama am ay réserve malgré que du ma am juriste mais naa esprit et lettre esprit et naa ko man li mu jàpp ne xam na ci am na ci avancement doonte benn lay doon muy li nga xam ne danañ jëlee conseil constitutionnel juróom membre yi doon ci ñaar mais ñaar yooyu bu fekkente ne comme loi la mën nañu dem élection 2017 njëriñ bi laay wax quoi lépp damay damay bëri liñ mën a dem maanaam waxuma ne dañ leen di gañ dama ne buñ demoon ba tey li ñuy wax cohabitation am maanaam l'opposition gagne l'Assemblée nationale dans ce cas dana am njariñ parce que ñooñu ñañuy ñañuy joxe quand même ñu doon ñoo xam ne ñoo président ñoo bokk xalaat mais bu fekkee président benn sens la preuve ku ci lire Moustapha tey dans sa déclaration Moustapha Niass dans tey mooy président sax dafa ànd ak Macky Sall à 100 pour cent ah, ah, mais dafa war a campagne campagne ah, campagne mais am mooy en tant que juriste et administrateur et un, ancien du Coran, il a utilisé cinq fois dans son texte l'avis. bi Macky Sall dans taw moom juróomi yoon Moustapha Niass nee na bis dañ Macky Sall ak avis la mm. alors y' a problème <laughs> parce que Macky Sall jox na Moustapha Niass jox Macky Sall jox na Macky Sall avis kenn leeraluñu est ce que moom li mu ko jox wuute na ak li koy cinq Sall jox dans ce cas y' a problème dañu waroon wax li ko Macky Sall li ko Moustapha Niass jox waroon na koo wan. parce que bu fekkee dañoo wuute rek y' a problème parce que pour man l' organe de la constitution am na solo waaye juróom-benn yi juróomi nit dafa nekk comme Macky Sall moo leen fan pour man amul solo lan moo am solo mooy assemblée nationale bi nga xam ne ay député fa nekk yoo xam ne dañ leen a fal ci gox goxaat yi ba ñu daje fa man jàpp naa ne ñooñu ñoo war a nekk au dessus formellement je parle pas du ñu faw mais bu fekkee dañuy seet ci ak juróom fukk ñu ñu ci koñ koñaan yi moo war a ëpp doole ñoom ñooñi buñ àndee seen président juróomi nit ñu Macky Sall fan te bu leen neexee bu seen mandat jeexee mu xool leen jàpp naa ne question forme la waaw forme la te itam fond la itam di ko ne ndax droit la te suñu wax représentativité moom moo ëpp moo ëpp légitimité en tout cas ci ni ñuy xamante légitimité moo ko ëpp ci président rek di ko def rawat na Sénégal nañu loolu d' accord nañ waaye li ma doon wax ci devoir yi ñu consacré jékki bi devoir des citoyens matalan ci muy acquitté euh, lu jëm ci fiscalité daf koy dugal ci biir mhm. ci muy défendre euh, réew mi muy combattre la corruption ak yu mel noonu xam nga nekk na ci maanaam guerre nañ ko dàq damay euh, wax ne loolu est-ce que mu ngi ci ñu ngi sant invité yu baax a baax mbokk yi ci foofu lañuy ñuy egsee ci mu mujjoon ci xaaj bu njëkk bi di ngeen ko doon seetaane su ngeen ñu bàyyi xel tuuti ñu ñëw ci xaaj